asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a safoo di seetaan seen chaîne leader bi di people 221 ñu leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay comme niñ ko tàmm di leen ko defalee tey ñu indil leen benn numéro bu spécial te buñ ne king of the wa seen xel war na dem fenn buñ ne kaanam bu mag a mag a mag bi seen xel war naa dem fenn ñu indil leen ki nga xamante ne mooy Met Shop l'ami de Wally Seck ñu bàyyi ko mu nuyoo Met nuyu nañ la. waaw ñu ngi siyaar ñëpp di siyaar yu naw xam nga waa people 221 di siyaar Ndakaaru di siyaar waa monde entier di kontaan seen teewaay ah naan jërëjëf gars amul bàyyi de doxal. doxal comme ni nga ko waxee noonu la ñuy doxalee met ku ne met ne Wally Seck ku ne met ne soirée Wally Seck fu ñuy tàmbalee waxtaan bi mooy ci ñett date yi ñu jëm Wally joxe woon benn dat ñu dem ba ci digg bi. mel ni affaire bi dafa war a gën a diis mu indiwaat ñett date trois dates consécutives week-end vendredi samedi dimanche tey ana naka ngeen di waajee bis boobu. waaw loolu ñuy wax week rek xam nga xam nga Wally moom moom moom la ñuy wax the king of the am na loo xam ne boo dul kaana doo ko ñeme yaa ngi dégg te tubaab du moromu naar mooy li may wax chaque jour rek na gars yi fair play vendredi samedi dimanche ku mën na def ku ko jéem karaj ngay def da ngay damm foo toll di ko dégg. li mu mën ku ko mën boo ko rombee sàcc ngay def te boo sàccee cent mètres nga jëm kilifa gu mag la na gars yi fair play nangu ndogalu yàlla yaa ngi may dégg vendredi dañ koy gisee fermé karec mu damm samedi ñu defaat ko noonu la même chose dimanche ñu defaat ko noonu yàlla la moom mooy borom almadi bu yegsee kay ku toogoon palaasu jàmbur na nga jug loolu méttiwul bàyyi faal mais met ñu ne ñett fan ñett fan consécutif booy def nañ fi ñetti fan grand théâtre moo gën a xeere téeméeri junni yoon ay vogue te boobu ak léegi def nag cinq ans. non mais mais prix billet yi daa yéeg de. non dama ne grand théâtre vingt mille la woon cent mille ak un million ñu def ko vendredi samedi ak dimanche da nga fàtte loolu. fàtte xaju fi. waa grand théâtre mille huit cent places la. vogue matul sax trois cent. baal ko ne. mais mais mais faw jinne yi ñëw de parce que baali vendredi baali samedi baali dimanche même personne yi. waali race yi mu yor ñoo bari ni dëkk yi wutee nga naan Guinée tey nga ne Los Angeles suba nga ne Washington DC noonu la ay public am wutee am na ñoo xam ne àjjuma lañ jekku ñuy jekku samedi ña jekku dimanche tamit ñu programme leen dimanche xam na lépp nitam yëpp xam na leen ku nekk jot bi nga am ak jour bii baax xam na ko moo tax mu def vendredi samedi dimanche. ah te nee nañ vogue yeeg faaf yi ba euh, capot yu mag a mag yaay ñëw de. non foofu mooy mooy croisement ñeme sa poos du ay caaxaan. Ah. kooku boo xamul boo boo boo boo parewul mentalement physiquement doo fa teg sa tànk répétition la rek mooy li may wax waaye dafay woote pour répété préparer pour dem liggéeyal tubaab yi Sénégal moom na gars yi fair li ñu fi Wally def soirée ngeen di dégg yëpp répétition la échauffement la rek du dara. nettiwul li fi jotoon am yëpp amaat na fi. mooy. xanaa kay vogue yeeg yi yi paase yëpp mais tey euh, bu weekend bi dinañ xaar xanaa lu spécial. ak li nga xamante ne mooy retour Wally Seck sur seen Sénégal. parce que gis nañ ah. yu bees dina am xam nga loolu Wally miin na ko yéen yéen a ngi seetaan gis ngeen répétition yi gis ngeen soirée bi ñu def Guinée son ñu fa teg yu bees yu xeere la yu wow gong mais mais mais ñett fan yi dafa particulier parce que euh, euh, après décès bi suñu maman Diaga dafa mel ni mi ngi soog a tegaat li nga xamante ne mooy concert Sénégal fii lu lu tax ñu naan ñu naan soirée dëgg-dëgg moo tax mën na la bisimilahi Sénégal rahmaani Ndakaaru raxiimi almadi ku toogoon palaasu jàmbur na nga jug the king yegg si na kan kooku tëj na lépp. bul bul cof foofu foofu dinaa fa ñëw. ku toogoon non dëkk bi la yëfam la ku toogoon place jàmbur dinaa fa ñëw. non mais dëkk bi ñëw na. Uh-huh. méttiwul na gars yi uh-huh. ñëw fair play rek xam nga nangu. ni affaire bi yàlla la du doomu aadama. ah comme comme tudd nga ko bàyyil ma ñëwaale foofu. for naa ci weewu béy ñu ne ni que borom almadi xam nga mi ngi mi ngi weekend bi mi ngi almadi borom almadi kii xale yi bëgg fan yi Momo temps yi na jekku na almadi trop. siyaar naa ko bu wér a wér man dooma jaxaseek ndakaaru Momo sunu xarit la kaana bu mag a mag la mbokkum yaayu the king of the na yi yem foofu kilifa la lu neex lay def lu xeere te par la force doole mbaam day doxal. Eh, waaye lii ma lay wax naan la tubaab du moromu naar loolu moom ak keneen ak keneen yëpp xam nañ ne tubaab du moromu naar. ñi doon baali kaana bu mag a mag ñi ñi ñi namoon waale ñoo doon dem ci moom waaw ku nangu rek fii ku fi nangu fair play ah. nangu ne tubaab du moromu naar bu sa king of sa voyage ñu dajale ASC bi dénkula ko nga doxal boole kook li nga yor muy ñaar ngay doxal kooku ku nangu nangu jël na cëru ku bañ moomoo dafa nangu kaana bu mag a mag la moo tax mu am loolu ci sa king of sa yaa ngi may dégg mm. yàqulu ko nag dara du ko teree liggéey waaye kaana bu mag bi dafa yegg si ça ak moomoo dégg nga ma de dégg naa la bàyyi leen ruuba beeg ak xorom pole bi ngeen di def ci diggante bi gaynde gu mag la muy the king of the bu yegsee ndakaaru xam nañ ne réewam la li ko yàlla may dootu ko mayaat nit fii ak un siècle lay amaat ku mel ni waali fii ak cent ans la ko yàlla di bindaat kon day ku nekk dëggaluma la ku toogoon place jàmbur na jug am na ñuy dagg action bi naan xam nga sa waay am na ku muy sànni ay trac déedéet mhm. même ñi nga xam ne nii ñoo doon baali waali loolu wax bi mën naa wax bi dafa général dafa dafa dafa yaatu bu leen ko yemale fenn. li nga wax leer na de. lu xeere laa la wax. li nga wax leer na nañ. waaw kon kon sawaay na na na na delloo public bu jàmbur. non jëlu ko ba koy delloo waaw jëlu ko ba koy delloo de. ñun bu sa king of sa génnee réew mi. Mhm. dañuy xool ki gën a yaru ki gën a neex a waxal ki gën a nangu ñu dem di ko baali dégg wax ji. ndax président sax bu génnee réew mi day am ku mu fi bàyyi. da dama ne la fii foo jaar bàyyi fii benn ambassadeur. wala bàyyi fi premier ministre mu doxal wala nga bàyyi fi président assemblée nationale muy doxal yow gaynde gu mag gi nga génn dem yëngali jommal tubaab bi comme li ñu ko defee Allemagne jommal leen ñu xëy def à la une Wally Ballago Seck nangam ak sàngam bind ci lu ne ci àddina ni élément lañ manqué woon jeune bu mën a solu kiling carré mën a way am ay technique la àddina manqué woon yàlla dogal na ñoom Allemagne yi ñoo ko wax ni yàlla dogal na ñu am kii ñuy wax Waly Balago sekk doomu Thione Seck def ko à la une bind ko ci journalu alman yëpp mu wër àddina kooku loolu yombul na gaa yi nangu. loolu yaakaar naa leer na. moo gën a moo raw laaj moo raw làmp bi nga ma tiimale nii. <laughs> ah dañuy dañuy des ci ñett bés yi rek ñu seetluwaat leneen bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti voyage bi mujjee am na yu jot a xew comme jotuñu woon ci toog waxtaan daanaka kenn waxu ci. mais bugguma sax ñu duggaat ci ndax yooyu noonu yaakaar naa bu jàllee jàll na. ñu gis benn altercation bu ndaw ak monsieur le ministre Omaro ñu gis ko sa copain Adamo ñu am benn laale bu ndaw mais après affaire affaire yi revenir na à l'ordre tey jii ban analyse ngay ngay ngay def ci loolu. non yow def nga analyse bi ba pare laale bu ndaw kay jeex na masse bi tas na bu doon laale bu mag ñu ko laale bu ndaw la moo tax ñu cof ko noonu. laale bu ndaw lañ tey tey tey loolu ba amee ñu gis monsieur le ministre Omaro ñëwaat delloo waat. waaw parce que tey tey boobu noo koy analyser. loolu gaynde gu mag gi. Mhm. gaynde gu mag a mag gi ñu koy wax the king of the moo si def analyse. Mhm. moo ne bërët. Mhm. génn laal ascenseur bi wàcc ñi taxawoon ñëpp xulli seen i bët mu ne kii lu xew kenn kee lu xew kaay nii kii ñëw nii lan la mu ne nangam ak sàngam mu ne bu loolu amati na lii ak lii doxalee nii daleen ko defalee nii kilifa la ku mat kilifa la kaana bu mag la ku xam fu muy taxaw la ba mu ko reglee ci une minute 46 secondes match bi dafa tas ba ñu xëyee gis nga nu mu demee aadama ak Omaro dañoo di bokk ndey ak baay bu tuddante ay doom. loo ko accolade def lépp accolade embrassé def lépp ànd photo wu garaawul c'est la famille ñaar ñu bëgg waale la trop trop trop trop trop ñoo far ñoom. kontaan nañ ci seen jëmm nañ doxal rek ñu avancer waaw gëmm rek dóor comme ni ko Omaro di waxee. gëmm rek dóor comme ni ko Omaro di waxee. met après dañuy xuus si li nga xamante ne mënuñu génn si ñett date yi parce que ñett date yi fu mu toll nii mooy bës bi mooy xorom si fu mu toll nii dañuy jël li nga xamante ne mooy almadi ak nu mu toll met du du du revenir en arrière sax. almadi benn entre la gaaw a xat. bëri oto embouteillage bi ne ma nii ma almadi du maafe. bàyyil almadi bi ngay garaawal. the king of the. doom de Paris doc Ousmane palais des congrès. yaa ngi may dégg. feesal saal yi gën a mag Allemagne feesal saal gën a mag Amérique feesal saal yu gën mag Angleterre. feesal saal yu gën a mag Canada wër àddina monde entier ba mujjee barki dem mondial festival bi festival bi nga xam ne nii bu Michael Jackson doon dund wala Amara Shakur di Tupac dañuy ñëw fekkee festival boobu jël ci micro comme faatu nañ ici repose ñu indi the king of the mu samp représenté leen. loolu du ay caaxaan kooku yooyu yëngalu ko almadi quartier nga ma wax nii yow waxoo ma commune waxoo ma arrondissement quartier ruq nga ma wax aywa eh maa jàmm. jàmm kese. ah kan kay na gars yi fair play. jàmm kese. noo xoolal na gars yi fair play loolu loolu dara bu gars yi xam nga am na yoo xam ne méttiwul waay almadi ñu du sunu almadi nee naa lañ fay échauffé woo. avant match préparation match. barki borom Touba. bu ñu génnee foofu ñu xaw a coof actualité. ñu gis ci ginnaaw tuuti gis nañu mariage ki nga xamante ne mooy maman bu Aziz Ndiaye ñu gis say relation ak Baye Ndiaye Aziz Ndiaye rafet lool lool lool tey mariage yu jur polémique ñi naan yàq la ñi naan borom xaalis yi ni ñuy marié woo ñu déglu tamit ci ay vidéo Oustaz Modou Fall mu ne sa doom boo koy mayee boo mu ne wàccee hélico wàcceel hélico defal ko lépp tey jii ban analyse nga ci waxu sénégalais yi concernant mariage boobu na gars yi fair play tubaab du moromu naar boobu may wax fi mu ko teg xam naa ko mag bu yorul gone la kenn du la laaj sa avis kenn doo la laaj noo fanaan noo yendu ak lu ñuy togg tey na yi nangu yaa ngi may dégg Aziz li mu def ku ko mënoon def ko am nañu ko gént sax pour def ko te fekk ne ay gént lañ ba ñu yeewoo dañu ne ay gént lañ découragé ku mën a siggil sa doom siggil sa yaay sigil sa baay sigil sa waa kër sigil sa askan def ko alal fajul dee de gàcce lay faj yaa ngi may dégg am na loo xam ne tey boo dewee bàyyi ko fi ici repose lañ lay defal rek juróom-ñaari perkaat lañ lay sóolaaleel doo yóbbaaleel maafe lii mu def man dama cee kontaan man la met shop bàyyi Xadija ki koy ñaan si boo yorul dërëm sax ma jox la dërëm yëngal àddina bloqué am bloqué bi yaa ngi may dégg baas diggante ndakaaru ba ndar invité gaynde yu mag yëpp teg orchestre ku yég wàcc jox sa morom. jour boobu laay jour boobu la ñëpp di jiboo ndax ku ne di nga yëg ci kaw orchestre bi. wàcc ak hélico sax. non ma ne lu nekk mën naa nekk ci àddina bu daajee un milliard deux dañ ko siy def loolu nga am si sigil sa doom si sigil sa soxna sigil sa yaay sigil sa baay loolu moo fi lool lool loolu lañ fi am. critique nag ñi koy def ñëpp xew un giga lañ def wala 128. wala 64. mais xew na gaa yi nangu xew semaine tamit. Baay Faal xew xala xewu semaine fa muy bay yaatu rek. waaw ñii xew ak ñaña ak ñi ñi ñi ñaan si ak ñii maye ñaari famille yu xeere yoo xam ne buñ dajaloo une semaine sax daf cee gàtt xew bi mënoon naa def gàtt gàtt gàtt gàtt quatre-vingt-dix jours muy muy trois mois na gars yi fair play waay nangu. waaw mais xanaa fu mu toll nii ñu jublu ci date à l'avenir rek ñu gis tey benn date boo xamante ne. Waly bokk na. 22 juin bokk na ak rakkam. ñëwal rekk wéq aada bi ngay wax borom 22 juin ca Milano Centrale. mais rakkam la ko bokkal ndaanaan yëpp ñu ngi koy xaar. programme bu xeere la. rakkam rakkam la ko bokkal de rakkam Sidi. non dama ne yow de waalee ko moom raxul kenn. kon amul ko ñoom ñaar bokkuñu bés bi 28 28 waale ko moom. 29. Hmm. Hmm. waali day tëgg dégg naa Siri Diop day tëgg. day tëgg loolu laa lay wax ni. kii ngi tëggee màq. kee di tëggee ndakaaru bokkuñu sax yoon na gars yi bàyyi polémique bu sew beeg coow yi ñu jëm a créé. loolu du polémique xam nga ñoom dañoo xaw a bokk public. ñun ñoo bokk ndakaaru bokk Sénégal. Mhm. na gars yi fet loolu dara. kii fu muy tëgg ak kee fu muy tëgg avion moo koy daw. yow li la li la waali jaral déplacement am na ku ko siidi jaral tey jii kookuy baali siidi di baali waali tey lu foofu choix faaw moom fa. waaye nag problème bi nag yaa waa yokkee loolu yoo neen yéen foofu ngeen tiitee dëgg la li nga wax lu mën a nekk la ndax waali tey boo waree joué Belgique si di joué Italie mhm. waa Belgique dinañ toog ci seen tànk bañ a dem ndax dañuy xaar waali mhm. waa Italie sax dañuy jógee itali ñëw Belgique loolu yàlla moo koy dogal yàlla moo koy def ci nit loolu Sidi ci boppam xam na ni kii phénomène la ndaanaan bu mag a mag la du dëgg Sidi xam ni moom tamit ndaanaan bu mag la ci côté xam nga daana ni dañoo bëri façon bëri ay décret bari ay niveau bari ay tolluwaay ñëpp mu ngi leen wooyee président waaye nit ñi duñu benn loolu day am loolu dara gars yi dañuy nangonte rek boo nangonte rek su tey mën nga nekk tey mën nga nekk deux suba nga nekk pay yéen néeg la borom moo ciy fanaan. kon maanaam sawaay na xaar quoi. kan. kan mooy xaar. beneen borom beneen date bi. mooy kan. Sidi. waaw lu muy xaar moom. lu muy xaar. mais benn date. Sidi na répété. na répété ndakaaru dem Italie dem France balance doxal Waly répété ndakaaru dem itali balance doxal c'est le Sénégal qui gagne waaye nit ñi nga xam ne nag ñoo yor seen xaalis yor seeni i yor seen i sañse ku ci solo ba jekk jënd sa billet yaay xool dëkk bu la neex nga wàcc fa loolu loolu loolu choix wu doomu aadama yi la. du ñun choix boobu nag lañ lañ lañ lañ bëgg a casé ñu ne choix bi. kii mais Wally tëggul boppam xam nga Wally tëggul boppam. waaw promoteur yaa ngi fi yor seen i milliards bëgg Wally doxal. bëgg si di doxal ku si nekk nag boo ñëwee nga jël kii jël momo wala nga jël ku nekk nga fay ko cachet li damaa bëgg nga tëggal ma bu daj di nduroowee loolu doo ci dara duma ci dara promoteur bi la te yi dañuy liggéey kuy jaay ku ne ko ne ñaata lay wër du dëgg dëgg waaw léegi nag li ma leen mën a xamal lenn la ñun ñu ngi kontaan seen jëmm yaa ngi dégg di woo ñëpp fii ma toog ni du ay caaxaan salon d'honneur bi la. salle de musculation bu ànd ak salon d'honneur du ay caaxaan salle dina fi nekk ba xëy xewi te du ko am pause café boo ko déggee ci tubaab bi nga ko déggee am na ci salle bii diggante bopp Ritra la nekkee ak Brioche Dorée ñaari tali. Ibaz fitness Ibaz fitness la du ay caaxaan kaana bu mag a mag la. tey nag fi ngeen ma fekk nii dafa fekk ma ba entraîné pare ba duggoon ci ñu koy wooyee ci versaire yi ba sangu ba génn ni moo tax ngeen fekkee ma nii waaye tenue bu xeere laay def boo amul tenue boo ñëwee inscrire ñu utal la tenue jox la lu xeere la promotion la nekk liñ jëm ci tabaski moo tax dara méttiwul kontaan naa ci yéen tamit people 221 yéen the king of the da leen respecté ndax liggéey bu mucc ayib ngeen di def seen image leer na li ngeen di bind li ngeen di tiitare xeere na xam ngeen fi ngeen teg seen tànk programme yu mag yëpp fekkee ngeen ko du dëgg. mais mais sa copain fan yi fu mu réer. kàlla guy gi. guy gi amul jot te guy bu tojul du am njëriñ fu mu nu mu tojee guyam googu lay wër. Ah. na dal gis naa ko muy lëcc lëcc rek. Ah. diggante mook trois point diggante mook maam mook mook maam nag war nañ ko xolaat <laughs> guy gi yaag savon naa ko xolaat de. Ah, tase nañ aéroport Gambie mën ak yéen. gis naa ku lay tagg tagg yi naan guy gi soqala rafet guy gi dangaa baax guy gi guy gi da ngaa guy gi. fair playal tubaab du moromu naar sama waay nga gisatuma la fenn baax na. waaw mais comme comme nu leen ko tàmmaloon defee rek gis ngeen am nañu waxtaan bu am solo ak ki nga xamante ne mooy Med Shop king of the capo bu mag a mag bi fii biir Ibaz fitness joxe na adresse bi léegi xanaa après dinañ leen wan quelque détails yi nga xamante ne mi ngi fi. waaw boo ne ci salle de musculation bi te nag maam. Mm. Euh, euh, yéen xam nga yeen people 221 maam Ndiaye Savon dafa mel ni yéen la bëgg. Mm-hmm. nee ko. Met Shop nee na kaana bu mag a mag bi mbokkum yaay sa king of sa. mi ngi lay dégg moom ñun rek lay topp na ñëw inscrire ci salle bi. Uh-huh. parce que moom dafa bëgg lu am niveau. waaw maam bëggul ay premier bëggul ay quatrième choix ay troisième choix ay deuxième choix. premier la bëgg. jigéen bu xeere la. ndaanaan bu mag la lu wow kong la na ñëw salle baa ngi nii na inscrire ñam njaab njaabu golo marché kanaar cokki cokki. teint bi gën a génn yaa ngi may dégg mu gën a xeere. waaw kooku maa ko wax kooku maa lañ ko lancé guy gi na ko jottali message bi jàll na na jàll Abbas business gi noonu kaana bu mag baa gi noonu na caméra bi tourné ci gaynde gu mag ngeen xool ko ñëwal Ibas ana mu tourné ko Ibas fitness ngi noonu waaw après danañ ko jël ngeen génne ko musculation cardio yëpp ngi fi non lépp ngay def lépp a kii feebar boo waroon demee hôpital boo ñëwee ci salle bi wér mhm. ndigg luy metti tànk luy metti yaa may dégg oom yuy metti mhm. ndigg lu càng ak bopp lépp la ñuy defar fii ñëkkaana yëpp jaar mbër yi ngay dégg yu mag yëpp du ma tudd seen tur day mel ni xëccoo la mais gaynde yëpp fi lañ nekk. ñu ngi fiy doxantu waaw comme nuñ leen ko tàmmaloon di leen defee Medshop la ñu amoon tey comme invité ñu amoon seekoon waxtaan bu am solo macha allah ñu leen di jox dig daje di leen wax merci beaucoup.